teew ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp te di rafetlu seen teewaay oh, bés bi nag tey li nga xam ne moo ñu dajale mouvement massif moo ñëw di euh, waxtaan ba pare parce que comme duñu dëkk ci dëkk bi ñu am droit choisir ñu def si mu choix ñu ñun président Macky Sall moom la ñu porté mooy suñu candidat en 2024 incha allah moom nag duñ ko laaj lu mu bëgg ak lu mu bëggul dañ ne ñun nee nañu moom par force day bokk su bokkul ñun dañuy marche dañuy def pétition sur le plan national ak international parce que on l'a choisi comme comme notre candidat incha allah en 2024 te par force dafay bokk loolu mooy la def loolu tëgg yow tax yow nga am sañ-sañ ñu gën a wax ne président parce que peuple bi mooy décider ñun ñoo décider en tant que mouvement wax ne moom mooy suñu candidat ñun loolu la ñu moom lañu ñu choisir comme candidat. xanaa déggoo li ma wax dama ne moom par force ñun duñu ko laaj choix ñun ñoo ne moom dafay bokk wala yow comprendre loo de ah ñun voilà boo déggee ñun ñoo ne moom dafay bokk ñun waxuñu moom moom xam nga ba tey waxagul ñun ñoo def suñu choix ñu ne ñun moom la ñu choisir moom waxuñu bëgg na wala bëggul ñun ñoo def suñu choix ñi ne mooy suñu kandidaa par force dafay bokk moom ñun loolu la wax man man waxuma moom xam nga toog bii waxuma président mu ne lii wala lii dama ne waa Massif nee nañu sunu candidat mooy le président Macky Sall jeex na man waxuma lu président wax man li Massif wax laa wax. mais yéen est-ce que li ngeen bëgg ak lu loi bi teg. méngóo non man yéen comprendre leen de ba tey da ngeen a comprendre man waxuma loi waxuma président dama ne ñun waa Massif. président Macky Sall mooy suñu candidat man loolu laa leen wax rek wala ma man xam nga olof laa dégg ma wax leneen ñu marche ñu def pétition sur le plan national ak international moom ci boppam par force ñun duñ ko laaj moom waxul de ñu ñooy wax ñun waxuñu moom lan la bëgg ak lu mu décidé leen ni ñun li ñu décidé loolu la ñuy wax tey ñun ñoo bëgg de. parce que ci li mu liggéey la dañu évaluer ñu xool bi mu jëlee réew mi ak léegi fi mu fekk réew mi ak fi mu ko yóbbu ñu def suñu évaluation donc moom lañu tànn na àggali moo moo gën ci Sénégal léegi si noonu est-ce que nga ñëw si ma si groupement Massi ngir nga ñëw si mouvement Massi bi lan moo nekk objectif am fan la fan la soxee koo lan nekk objectif am ak de développement à caractère sociopolitique boo xam ne dañu nekk ànd di liggéey ci développement ñëpp nag dañuy liggéey ñi bopp c'est ak ay actrices de développement lañu donc daje nañu waxtaan suñu biir ñu ne notre candidat mooy le président Macky Sall. wàllu développement boobu yan yan euh, li ñuy def bari na ñun mouvement bi am na ñuy commerce am na ñuy jaay am na lépp en tout cas daal mouvement bi xam naa leen képp koo xam ne fekk nañ la ci benn àgg nga ci ñett ba ñu dajaloo nag ba waxtaan. ñëpp dañu am carte de membre ñëpp dañu am ay carte de membre membre yëpp dañu leen identifier de 1 à X donc toutes les membres sont identifiés. Madame, est-ce que, est-ce qu'on peut savoir euh, l'effectif euh, On est 417 et 15 417 Donc boo xam ne chaque membre a été identifié. ak son numéro de pièce d'identité muy ba les badges sont là membres yëpp dañu am ay badge ay numéro d'identification. waaw tey jii ce que euh, le yéen a ngi sóoraale askan wi nga xamante ni la ci askan bi. si ngeen bokk ah, jeex na kon askan bi ñun dañ ci bokk rek jeex na askan bi ak askan bi la c'est les sénégalais ñun ay sénégalais lañ jeex na. dañuy bokk ci askan bi rek di wax suñu choix jeex na. ok jàppale ñu question mhm. donc ci askan la. Mhm. mais aussi dafa am loo xamante ne nii. Mhm. moom moo nekk euh, au cœur. mooy que ni tey képp koo xamante ne Sénégal li nga bëgg moom mooy jàmmi réew bu ngeen taxawee ngeen ne le président de la république. son excellence monsieur Macky Sall. day bëgg mu nekk candidat. et que euh, beneen parti askan bi. ne bëgguñu mu nekk candidat mu indi ay jàmmaarloo est-ce que yéen ñi nga xam ne. waa xam nga daane xama daane est-ce que yéen ñi nga xam ne yéen a féete au pouvoir waaw tey jii bëgg jàmm gën a bëgg jàmmi réew mi ak ku ko gënti ak ku ko bëgg yéen a ko war a gën a bëgg donc est-ce que tey du ngeen bàyyi wàccee seen i loxo pour nag jàmm mën a am ci réew xanaa xanaa du ay sénégale ñun ñëpp ay sénégalais lañ lu tax ñuy bàyyi waa déglul xam nga lan la mhm. dama ne ñun ay sénégalais lañu comme tous les sénégalais comme ay sénégalais lañ nag suñu bëgg-bëgg la ñu wax xam nga jàmmi réew fan la tàmbale ci kii laa tàmbale fii laa bëgg fan la fa la yem ñi ko bëggul dañuy dem ku mën sa moroom duma mu jeex mais yomb na loolu rek la amul leneen jàmmaarloo amul ku am sa carte président neexu la jeex na ñun loolu lañu bëgg am nañu suñu ay carte donc ñëw leen ñu dem c'est simple.